personnes ou 2000 personnes yoo xam ne ñoo ŋànk économie Sénégal téye ko bañ na duñ ko téye duñ ko bàyyi. mu nekk un système boo xam ne ay privilégiés ñoo ko yor mu nekk ñun ñoo xam ne xalaatuñu intérêt réew mi xalaatuñu intérêt jeunesse bi seen intérêt bopp la ñuy xalaat ñu ne ñun bokkuñu ci conception d' intérêt boobu. mu am nag ce que j'appelle une génération d'idées génération d'idées particularité bi mooy un ñi fa nekk ñoo bokk nu ñuy xalaate te nañuy xalaate boo koy tënk mooy li ñuy woowee afro souverainiste mooy ñun ay sénégalais lañu ñun ay africains lañu ñun on est fiers de ce que nous ñun bëgguñu tubaab bi wala naar bi wala indien bi wala chinois bi wala turc bi ñëw di ñu jox ay ordre suñu dëkku nu mu war a doxee. ñun ba ñu waree formé wu formé wu nañ Sénégal am na ay ressources humaines yu doy pour mën a yor réewam.